On est fiers de lui. C'est un bon élément, comme je disais tout à l'heure. Il faut qu'on puisse le garder. Il ne faut pas qu'il soit, volé. il y a des yeux sur lui. Ou bien, il y a deux choses. Ou bien, il marque à chaque fois deux buts, et là, on lui augmente le salaire. il va le couper maintenant. Ils vont lui augmenter le salaire, on le garde. Ou bien, il ne marque rien du tout, et comme ça, il est sur le banc de touche. Et après... <laughs> Mais vous le voulez ici quand même. Je veux qu'il marque, c'est un bon élément, rien ne lui manque. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour ces mots. Habib, euh, wax naa ko léegi de ndaanaan la ñu seet si de ñu ñëw dëgg dëkk dañu commencé rek gars yi ñëw mais Habib lii qu'est-ce que ça te fait déjà Euh, Après, les... Ça fait plaisir, ça mm. fait mm-hmm. plaisir que des gens viennent me parler, des gens qui supportent à euh, Gaï Bograssi. Mm -hmm. Donc, ils supportent à Zine, ils me supportent en même temps. Euh, on le mettait là. Donc, euh... on ne voulait pas commencer par ça, mais il faut qu'on rentre dedans déjà. Parce que nous, nous il veut te il veut que nga reste ci club bi. <laughs> waaw xam nga dem ci benn club du question da ngay dem ci club pour jouer fa euh, sa carrière bépp. Mhm. da ngay dem ci club pour jéem faa def dara jéem a xool feneen. mais mhm. ñun ay footballeur lañu ay sportif lañu. Mhm. duñ dem ci benn club bu ko faa des tout le temps tout le temps tout le temps. ñun dañuy bouger tout le temps dañuy bouger dañuy bëgg di bouger tout le temps. Mm-hmm. après pour bouger boobu nag après ci ñun la dépend ñun ñooy def lu tax ñuy mën a bouger. Mm-hmm. bu fekkee defoo dara doo mën a bouger da ngay des foofu xam nga. Mm-hmm. mais après liggéey bi daal ci ñun la dépendre. Euh, Habib euh, gars yi bëgguñu nga bouger parce que Habib il marque des buts ils avaient besoin de ça dix réalisations euh, pour ce championnat nga démarrer noonu en plus surtout le but le plus rapide treize secondes c'est même pas 13 secondes tu c'est 13 secondes. c'est 13 oui c'est 13 secondes. Euh, il faut ñu ñëw ci loolu parce que dama ne woon dama club bi mais les gens nous ont interrompu foog rek ma dugg ci club bi avant mooy ñëwaat ci xam nga attaquant moom dañ ne dugal <laughs> booy dugal moom wala mhm. tout va bien. Mhm. mais bu fekkee ni dugaloo après xam nga rek gars yi ñu commencé wax ci suuf nii nii nii mais football tamit du question dugal kese. Mhm. du dugal kese yow mun ngaa jouer attaquant ak beneen attaquant mun action yoo xamante ni pour keneen mais pas pour yow mais xam nga football faaw nga dund ko mën a xam réalité football dëgg-dëgg mhm. attaquant du question dugal kese dugal kese waaw rôlam du loolu kese non mais mhm. euh, euh, euh, attaquant dafa am benn attaquant boo xam ne dama ko interpellé mu wax ci koy dem xooli ñëwaat ci plateau bi après ñu duy waat si rôle attaquant du dugal kese mooy mooy rôlam je suis un attaquant et je viens d'Afrique euh, du Sud. Habib, oui, c'est <laughs> mon grand frère aussi. Euh, euh, on joue la même poste, c'est-à-dire euh, à, l'entraînement, même au match, on, on, se parle beaucoup. On se parle beaucoup, euh, mais lui me donne beaucoup de, con, euh, de, conseils. Il me pousse chaque fois à l'entraînement pour je fais mieux. Non, il n'y a pas de concurrence. c'est comme mon frère. Il est là pour m'aider. et il est là pour, euh, pour me pousser et je vais très loin. Mmh. Et, et, je l'écoute, mais de temps en temps, si je l'écoute pas, ouf, il me frappe. Hein. Il te frappe Ah, il me frappe, <laughs> parce que c'est mon grand frère. Ouais. Donc, quand on dit Ludovic, euh, Ludovic Ajor, mm. quand on manque mon... boo dee xool moom a sut moom attaquant la tamit te moom def mun naa wax moom moo nekk attaquant boo xamante ni saa ñu fubalee on s'entendait bien <laughs> maak moom déggoo woon nañ daal même bu fekkee ni ñoo bokk même profil tamit. déggoo woon nañ ci terrain. moom bu yoree bal daf may chercher tout le temps wala man ma yor bal dama koy chercher tout le temps. ndax année bu may doog a ñëw Strasbourg. boobu Strasbourg mu ngi woon dernier. dernier voilà. ba pare moom euh, période boobu benn bii la dugaloon tamit fekk ñu ngi woon douzième journée defe naa. ci laa ñëwee année boobu mu ngi marqué presque xaw ma seize buts defe naa ndax. Euh, moom moo nekkoon ci kaw di xeex du am kenn ko jàppale xam nga mais man ba ma ñëwee moom day liggéey pour man man mooy liggéey pour moom donc loolooy loolooy football <laughs> mais yow doone damay liggéey liggéey rek pour man kese non non da liggéey pour équipe bi mais ñun ñaar loolu lañ doon day liggéey pour man may liggéey pour moom maanaam concurrence amu mun nañ ne concurrence amu na mais maag moom romboon nañ foofu xam nga <laughs> même ak euh, période bi Kevin euh, mu ngi fi Kevin Gamero tamit mu ngi fi mais concurrence am na mais pour ñun amul quoi <laughs> mhm. ndax on est ensemble voilà on gagne ensemble on perd ensemble donc. Euh, euh, lu ñu bëgg mooy Strasbourg gagne rek. waaw on revient on reste sur Strasbourg balaa ñoo dem Habib Strasbourg mën nañu wax ne sa dëkk la fii trois ans quand même lan nga fi dund loo xam ne da lay marqué surtout ñu ñëw si Strasbourg. lu ma fi dund loo xamante ni marqué na ma euh, xanaa première bi première bi bu ma dugal contre Montpellier première bi. Mhm. Oui, parce que ça m'a marqué. C'est le deuxième. Je pense que c'est le deuxième but le plus rapide de l'histoire. L'histoire euh, football français. Donc, mm -hmm. euh, ça, ça m'a marqué. Euh, Là. Ce choix-là, je suis motivé pour nous faire choix. Pour nous faire, c'était compliqué. Wow. Surtout le mot le choix, je suis motivé. Question, il faut que Non, c'était compliqué. Uh -huh. Messi, tamit. Mm -hmm. mooy loolu ak période Covid bi tamit ñoom ñu soxla woon xaalis xam nga Moussa yow ñu bàyyi noonu. non non non ñu bàyyi noonu non non parce que les téléspectateurs ont besoin de savoir le choix lan moo ko motivé Habib Strasbourg la ñu wax loolu ñu wax ah. xam nga gars yi comprendre wax expliqué ci tuuti rek expliqué ci tuuti ñu xam. xam nga période boobu mees a na proposition Angleterre voilà xam nga des fois da bëgg benn da ngay bëgg dara. Uh-huh. mënoo koo am ñu fay la. lu xaw a lu ci méngoo lu ci kii daal bëriwul. waay nga ni non non lii bëgg nga dem ba benn moment lu nga bëggoon amatoo ko ak ñee lañ la ci woon amatoo ko léegi da ngay obligé lu ñëw rek nga jël. ok moo moo daloon sa ñooñu. loolu la nag. <laughs> abi abi abi bëggut a xóotal de mais dañuy dellu Metz dañ fay dese parce que Metz on va parler de génération foot à Metz ñëw foofu noonu. c' est là tout a commencé sur le plan professionnel. Mm. Euh, nga jógee génération foot ñëw Metz. comment ça s'est passé un peu foofu nga ñëw fa Sénégal lañ jógee ah dañuy jóge Thiès ñëw génération foot ñëw Metz parcours boobu la bëgg nga ñëw un peu téléspectateurs yi xam kan mooy Habib. boo dee xool euh, génération foot euh, benn coach bu dëkk Thiès. Mhm. moo fa nekkoon bu tudd Djibi Fall. ndax euh, période boobu dama waroon dem voyage. Mhm. mais après c'était compliqué tamit ba après ci laa defee ay test génération foot ma dem côté bi voilà après ci la ma monsieur Perrin gis ma gis ma ñu waxtaan noonu ok ci la accepté dem génération foot après même pas quelques quelques mois un an un an waaw mhm. ci laa rejoindre euh, FCMS mhm. avec les U18 nekk fa stagiaire comme stagiaire noonu xam nga nekk fa ak ñaari sénégalais tamit yu fa nekkoon tamit. Mhm. muy am sila ak Samba Gueye Samba Gueye léegi yàlla def mu dellu Sénégal am sila moom dellu woon na mais ñëwaat na di liggéey FCMS. Mhm. donc euh, ba léegi maa ngi déggante ak ñoom donc euh, métti na nag métti na mais après. sa sa ñëw sa ça s'est passé comment est-ce que c'était sa sa intégration est-ce que Habib xaaroon na loolu ci football surtout. fi nga gisee sa jaar-jaar ci wàllu football parce que yaa ngi quand même merci am na ñoo ne tey jii mën nañu wax chance la mën nañu wax talent la. waaw xam nga football moom chance am na ci talent am na ci. Mm-hmm. mais après lu yàlla dogal moom kenn mënu ci dara. yoon la woon mën am talent bi tamit yàlla dañ doo mës a lekk xaalis football doo ko mës a lekk. Mm-hmm. loolu kenn mënu ci dara. te bëri na sax. mu ngoog nag surtout Sénégal. am na mm-hmm. ñoo xamante ne ñoom ñoo ñu dàq football fuuf mais ñu ngi Sénégal ba léegi. yàllaa ko tuddul rek mais après tamit. ci laa demee Metz Metz euh, au début métti woon na après xam nga rek bàyyi lépp ci loxo yàlla. <laughs> c'est que moom dinaan au début métti woon na mais du ma bëgg du bëgg ma dugg ci biir. mais jaar jaar la quoi. nekkoon na ak petite catégorie bi. Mhm. amoon na coach bu fa nekk. Mhm. neexawuñu woon tamit neexawul même ak yeneen sénégalais sax ak yeneen africains yi fa nekkoon neexawuñu woon xam nga. ndax am na moo bu gars yi di bugguma cee jaar ndax voilà am na abi ah, moo man moom ku joteeg man yaa ma tooñ ku <laughs> joteeg man moom <laughs> dinaa ko il faut mu laajte ko kenn ku joteeg yow moo la tooñ il faut que daa am ko laajte après kooku dama jox réponse bi comme jour yi ni di kaas di kaas nii ci coach noonu mm. ça m'intéresse pas non bi xam nga bu fekkoon ci man rek la météo mm-hmm. raawul mais ak ci yeneen africain yi tamit après loolu ça sous-entend beaucoup de parce que su ñu nee yeneen africain yi on peut pas dire on peut pas dire le mot mais ça existe réellement dans le milieu du foot mu ngi fi chaque jour dañ koy wax mais mu fi yow nga subir que moment boobu écarté moment boobu très dur Habib. métti na xam nga man am lu ma métti man. ci ah. wàllu football. waaw doo dégg sama làmmiñ mukk ma wax ci lii wala laa non dem ci mhm. la ñuy jéem a ki dem ci jéem a kaas ci a fubal ci biir bi laa koy wane sam sufi mhm. wala dem ci kaas pour am poste bi non non. Mhm. Euh, noonu lañ def après ci laa amee benn blessure en 2014. ci laa waroon a signé euh, professionnel après mes ne ma non doo signé ak yooyu après même monsieur Perrin moo ñëw taxaw ne leen carrément bu Habib signé wul ma démissionné monsieur Perrin def tout ba ma ñu signé loo ma un an. Mhm. ma un an boo dee. malgré la après blessure waroon naa. Mhm. ba maa ngi cicatrice sax euh, fracture la woon. Mhm. après monsieur Perrin def tout ba ma ba yooyu jéew ma ci lu bari. ci laa demee Coupe d'Afrique. Mhm. avec U23 U23 waaye. ci la ñëwee tombeek mes changé coach coach boobu yóbbu ma ci réserve ma dem joué ci réserve à chaque fois bu ma demee dugal. Mhm. à chaque fois après ci la ma récupéré indi ma ci première. Euh, man soo ñëwee ci question yi boo ñëwee ci U23 rek il faut que les gens comprennent que première sélection Habib wax na ko léegi ci biir réponse bi mooy chez les U23. chez les U23 oui. ça c'est comment ça s'est passé. U23 yi tamit euh, même coach bu fa nekkoon mu ngi tuddoon Serigne Salif Dia. Mhm. moom période boobu moom moo nekkoon c'était en 2015. Mm-hmm. ndax euh, moom boo dee xool ñu ngi doon déggante tout le temps topp ma ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal ma ne ok ci laa waxtaanee club ma demee man leen comme que jéew ma mun naa dem foofu am tuuti temps de jeu xam nga yooyu expliqué ñu ne ma d'accord amul problème ma dem. premier match jéew ma sax dugg ma sax. Mm-hmm. dugg sax terrain bi. deuxième match ci laa dugg remplaçant dugal. Mm-hmm. troisième match ma joué titulaire dugal. ci lañ génnee dem demi-finale. ñu dem demi-finale j'ai même pas joué. Mhm. donc après on a perdu 1-0. ñëpp naan lu tax Habib joué wul lépp naan Habib joué wul Habib devait jouer. <laughs> loolu tamit on en reparle. dama ne damaa waroon a football. waaw mais c'était en fait dañu ko réclamé. parce que euh, euh, nu mu tudd Habib à chaque fois qu'il a eu à démarrer ou bien à faire nu mu tudd à être remplaçant ci génération.